sëñ Modou Kara loolu tànk yooyu la wax mu ni mi ngi ci gannaaw baayam moom taalibe rek la mën a doon luñ ko jox comme ndigal yi mu def luñ ko tere mu bàyyi xëccoowul dara ittewul dara itam loolu moom bu ko wax rek bu ko waxul yëpp xam nañ ko li yàlla def ci nit danga koy nangu yàlla jox na ko mbooloo te mbooloo mi kenn mënu koo dindi sampu sëñ moo daaw ball du jeex mukk waaw sampu sëñ moo daaw ball billaahi kenn mënu ci dara dama leen di wax ci biir rek sànq moo sëñ Bass Abdou Khoudous ma ne ko fii di Darou Moussi ku nekk am na partition ku nekk am na lu la yàlla may nan nangu ku nekk li la yàlla may ca bàyyi ko moom yàlla dimbali ci loolu suñu borom subhaanahu wa du boole lu bokkul maanaam lu mu boole lu nekk rek lu bokk la boo gisee tey ñu gëm ne jamono jii ñu toll sëñ Modou Kara dafa war a feeñaat wala dafa war a dafa war a génn wala nit ñi dañ ko war a xam dañuy bàyyi xel ci ne tey jii kii yàlla dogal mu nekk fi maam Thierno yi dafa am ay wax yu ko jiitu li ko jiitu mooy ki nga xamante ne moom moo samp suñ Muudu Karaam yi defal ko lu ne wax ko ne ko ku la doon diirit du la mën a jam kookee moo samp suñ Basiru Anta Ñaŋ nii te moom moo ko waxal boppam man sotalu ba ko muy sëñ mu daaw bàll sëñ mu daaw bàll moo ko waxoon ne ko demal jàngi boo jàngee ba pare nga ñëw li nga soxla woo lépp borom dara dana la ko defal li nga soxla woon lépp borom dara dana la ko defal nekk ci ginnaawam financé ci alalam ba sëriñ Basiiru samp kër samp njabootam def yëppam mu ñëw kon tey su fekkente ne ku mel ni sëñ Modou Kara dafa ñëw nekk ci ginnaawam damay wax ne nit ñi xamul ñooy wax waaye lu war a am la te lu war a nekk la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu e di fa séene tëje rek li ñu ubbee woon bi niyatil xayr wa xawlil xayr wa filil xayr ci njàngaleem ku tedd ki di sukkandiku ci yéene lu baax fas yéene di ko wax fas yéene di ko doxe ci tolluwaay bii jamono toll rawante na ci sunu réew mi te lii ñuy tudde am mbas te accaparé adduna bi yépp nu doon ci gaaral ay kàddu ci suuf bi xale yi taxawal seen kuréel bi nu wax leen ci li nu leen ci wax ba tax na masque yi demee woon fi ni mu fi demee ngir ñetti mbir bi ci jiitu mooy li nu nekk ay sénégalais am état état bi amal ay dogalam ci gàttu kàddu njiitu réew mi di raïs Macky Sall ñaareel bi suñu kilifa a cheikh mouhamadul muntaka soññee ci ngir li docteur yi wax ni ci diggante saytu ak moytu ci xew-xew bi nga xam ni mooy tawat ji zahir ak moo am bu dee ku demee ni ñun ñu deme ni ñun nga xam ni mën naa alaya bi hulumil asfiya wa bi kitabatiya kulla dashfiya dañu koy bàyyi xel ak allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani shifa min kulli daa muqaddari loolu gënuñu koo xam kilifa bi moo nu ko gën a xam te mooy sunu kilifa te teewul mu jàngale li nga xam ne mooy zahir si waaw muy mesure barrière yi nga xamante ne bii dañu koy jëllu citoyen bu nekk war ko respecté ñun ñu nekk responsable war a soññee itam sunu njaboot ak ñi niy déglu di xamal kilifa gi cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg te wér ak cheikh Mouhamadul Basir xalifa cheikh Ibrahima Fati di leen xamal ni li kilifa gi wax te muy dogalub état bi te kilifa gi di ci soññee murid yëpp murid yëpp am na nañu yéene jëfe ndigal loolu nga xamante ne bi Serigne Mountakha daf ko jox ñëpp te mu doon digal loo xamante ni bii digaluñu la ko ngir kenn dañu la ko diggal ngir sa njariñul bopp loolu suñu warugar mooy yaatal ko jàllale ko ba senegal yëpp di ko dégg waaw Sénégalais bi nekk ci réew mi ak bi nekk bitim réew ñëpp xam ni noo ngi soññee ci loolu waaw néew ñu dañuy wax ci kàddug ta Muntaxa ndax am na ku ko waxal néew ñu dañuy wax ci kàddug sëriñ Basiiru Anta Ñang ndax am na ku ko waxal waaye dañuy wax en tant que dongo en tant que jëwriñ en tant que njiit waaw moo tax ñu ciy soññe xale yépp wa ba noppi di ñëwaat di wax xale yi nga xamante ni bii fi ñu toll donte ku doon jéem a jëm ci géej gi dugg ci gaal itam ci ban réew nga jëm ban réew ci ban réew nga jëm wa réew yépp ku ci ne fi ñu am nga leneen loo tal lu dul di recevoir kenn kuy wut si koppar waaw moo tax xale yi nañu dalal seen xel te gëm li Serigne Touba wax xadd fakka kabala la wax xadd basta fadd la fa jurru wala wa nafu jaay ndem ñaar njariñ li ñëw na fan lañ koy wutee ak nuñ koy wutee loolu moo jar jéem a xam waaye jarul jóg di jëm fenn wasalaam